asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki talibe yi ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal jàmm ak xéwal ba di leen ñaanal feebar bi nga xam ne moo dugg fii ci réew mi yàlla wis ci ndox mu sedd guy tam sedd te dem ak jàmm tamit fi dellu si ba dinay tukki ci barke borom Tuubaa loolu weesoo ñu ngi siyaar suñu jigéen bu baax di sunu sëriñ wax amuñu lu may maamam sëñ Fallu di soxna maam Faati moom Cheikh Bassirou Abdou Khadir di ñaanal yàlla guddal aw fanam te wéral ko man nag boo gisee ma def lii vidéo bi ma toogee jàkkaarloo moom dama mën a wax ndax sama xol sama xol day sedd ba li ma bëgg li ma ko bëgg a wax lépp duma ko mën a wax waaw di ci siyaare waale bu baax borom këram Cheikh Bassirou Abdou Khadir moom itam di ko ñaanal yàlla guddal aw fanam te wéral ko ndax gis nañ fi mu taxaw taalibe yi gis nañ ni mu jàppaloo taalibe yi di di ñaanal soxna Wali Kebe moom itam di kenn ci ñun xam ni boo duggee këram dalay jàppe ni boppam def na li boppam ba keroog nga fay génn te loolu lépp moo nañ cee bañ a fekk ndax jamono ji ni ma koy faral di waxee rek fi ne ñi war a rëy rëyuñu parce que am ñoo xam dañoo xam àddina ñu yar leen ci taalibe ñu judd ci taalibe ñoo nag ginnaaw yàlla dañoo boole ñoom ñuy suñuy nit dañ leen di fasaale fu toll rek di leen ñaanal bu loolu weesoo nag kii benn paaloon boo xam ne ndeysaan paa bi dafa feebar yor ñetti jabar. jabar yi baax ci moom lool jongama lool tamit macha allah paa bi bañ ko doon jabar yi tax muy daa sidda xarit daal ku ko ci seet si ni ko waaw ah, waaw sëñ Ngom yow <laughs> na def naka suuf biir si baax fi nekkay naa bu baax yëgatuma dara sidda bi daal <laughs> sidda bi daal moom moom moo ma jaaxal fi mu nekk nii te moom mosut a sidda waaye jabar yi lay bañ ñu doon ko jabar yi li bëgg yàq seen der bi xarit di génne doom ñu ne ko waa ah, papa papa kañ nga sidda mun leen waaye eh, bu leen ma fontoo ñii fi ne seen tante ñoom ñii doo nga leen jongur bëgg suma dee ñu jël ko moo tax mën leen damaa sidda waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.